Omar sos nga sos nga bidaa lii Muhammad defu ko woon waruñ koo def donc du loo xam ne boo ko deful du yàqu koor bi mujj mooy jigaale ak sa jabar te sanguwuloo set sangu set bi ñàkk sangu set jotewul dara ak weeru koor ah bien sûr ça n'a rien à voir ça donc Euh, beneen bi mooy waxoon naa ko fi ne nit ki mën naa dogee jabaram comme mën naa xëddee jabaram dogee jabaram bu dee am na ñu koy werante maa ngi leen di renvoyé ci hadis ñu xoor Abdullahi ibnu Omar doomi Seydina Omar ibnu Xataab moom bu weer wi teeroo ba ba muy dee chaque jour jabaram lay doge door a mos leneen bu ngoon gi jotee rek ndaw si moom mi ngi toog fi mu toog di xaar ci muy xaar Abdullah ibnu Amar daf daan jógee jabaram chaque jour waaw kon nag yooyu ay précision la yoo xam ne bëggoon naa koo wax aussi diggante euh, foonante bisu diggante jëkkër ak jabar moo xam ci leex bi nga foo foon leex bi wala fii ci tuñ yi yooyu yëpp yàqul koor parfum du yàqu koor maquillage du yàqu koor fuddën du yàqu koor émail hmm? du yàqu koor bien sûr du yàqu koor xanaa kay euh, maquillage sax émail ci la bokk benn maquillage du yàqu euh, ay sa càmmiñ ay sa wujju peccorgo ay yooyu la ñu bëgg ñoom yooyu si yooyu la dox bu ko defee nag télé yi nga xam ne télé naafiq yi ustaas yooyu la soxla parce que ustaas ñooy def buzz Sénégal médiocrité rek lépp loo xam ne diine lislaam la lépp loo xam ne lu baax la noo leen jaamoo yàlla déedéet amul ab ustaas nga ne diine ngay wax da ko toogee ak Pape Cheikh Diallo tok di saboté diine yalla ji bo waxee benn wax mu tok saboté tek ci ree nga and ak mom moom reetaan ñexe ñexe ñexe dinañ fa jóge ba jéxal lu neex mbett bi la wax parce que la ñuy wax mo neex nit ñi gis nga nit ñi bu ñu bëree am lu ci seetaan rek xamal ni kom lolu mo neex ñi ëpp ci nit ñi moo tax yalla dafa ngañ ñi ëpp ci nit ñi in tuti aksar man fil ardh yudilluka an sabilillah boo toppee yu bëri ci nit ñi dañ lay réeral ci yoonu yàlla islam à chaque fois dafay ŋàññi ñu bari ci nit ñu ëpp ci nit à chaque fois islam da leen di ŋàññi moo tax ñoom dañuy xool nit ñi lu ñu ëpp di seetaan xam nañu tey bu ñu woowee Ahmed Khalifa Niass tey vue day bu ñu woowee waajooju beneen kàccoor bi xaw ma Cheikh Tidiane Cissé xaw ma waa jooju noonu tojoon tëjoon yàggul xam nañ bu ñu ko woowee vie day vie day bari ñooñu dañuy ñëw gars yi tapote baax ngeen partagé partagé ngeen tapote maanaam genre saay-saay yooyu rek dañuy ñuy invité maanaam ñoom Sénégal Sénégal télé yi télé yi vue la dañuy xool loo xam ne moo ëpp vue seen yoon nekkul lañ fay wax lu baax la seen yoon nekkul lañ fay wax lu bon la na ay vue rek. tant que mu ngi am ay vues fa xayrun ku ñu mënta invité noo yàqee diina ñoom seen yoon newul Sénégal seen yoon newul diw day yàq diina wala yàq na diina ji moxoñoo télé yi rajo yi na diina ji moxoñoo sax moo leen parce que télé boo xam ne moom ka ko ubbi fecc fecc lañ ko xamee ak woy ak màbb diine am na presque soixante dix ans musul aji Youssou Ndour am na soixante dix ans dégguma fa fu mu ajee wala mu umra kooku ngeen foog ni kooku bëgg na lu baax te saa yu bëggee dem festival caaxaan day dem saa buggee bëggee festival nangam day dem ci ay caaxaan rek lay dox. chaque at kay mu organiser Bercy chaque at mu organiser Bercy France looloo ko gën a ñor. seen petit gàllé TFM seen petit gàllé ngeen foo ne loolu xalaatin boobu loolu loolu mission gis nga loolu dafa garaaw te bàyyi woon ci xel Youssou Ndour dafa ñëw indi benn système boo xam ne seen petit gaale la tudd maanaam xale bi vacances Sénégal lu ñu aadawoo mooy vacances dañuy jël seen doom yóbbu leen daara yóbbu leen école arabe mais Youssou Ndour fexe na ba organiser seen petit gaale léegi xale bi waroon dem daara bi waroon dem arabe jàngi léegi seen petit gaale lay dem loolu benn genre xeex diine moo fa nekk boo xam ne bu sew la doo la ci bàyyi xel nag bu defee ñun suñu yaay yi nga xam ne seen bopp yi dafa tëju dafa ubbu suñu yaay yi nga xam ne xam xamuñu lu dul bës sama doom mu ngi jënd télé sama doom estaan solu ay or loolu moom mooy seeni métier ñoom loolu moo leen seen doom fan lay dem ak fan lay dugg loolu soxalu leen toog nag di mbégee sama doom ji de moo jëm concours euh, nu mu tuddee seen petit gàlle di ko ndamoo nag concours lan fecc concours lan way concours lan caaxaan moo la sa doom gañe nga xëy na moo nag di ko bàkkoo di ko tiitoroo fexe dala ba euh, dugalal baylo fexe dala ba jamono ji nga xam ne yow yaa ngi waroon dem dugal sa doom daara wala école fexe dala ba ne indi ko fii fa seen petit su fa jógee nak carrément fa lay jaar yak amna na fi fii bu ñuy wax euh, mam jaar je pense foofu la gënné xalé bi légui c'est fini yakku na yaramu neen daanaka lay def di photo ñan ñoko formé sen petit gars Youssou Ndour ak ngone Ndour rakam bu jigen bi Bouba Ndour naam ñoko yak ba mu yak xalé bu Youssou Ndour mo moo nekk ci ginaaw Youssou Ndour rek mo mom lepp moom lepp mhm. mo nekk ci ginaaw lepp mom wow lépp am na keneen tamit koo xamante ne beneen beneen fii bi nga xam ne amoon na fi histoire ak xaw ma Diop Jacques xaw ma je ne sais pas kooku xool ko léegi parce que loolu moo nekkoon seen mission mission boobu lañ doon dox mission yàq loolu lañ doon dox réussir nañ mission boobu tey léegi nag loolu la ñu continuer nag ci quartier général dañuy bàyyi ba di ba islam ñëw dañuy bàyyi ba islaam ba weeru koor bu sell ñi nga xam ne ñëpp dañuy jaamu yàlla ñëpp sax au moins ku doon caaxaan da nga koy bàyyi ñoo leen déedéet seen caaxaan yi weeru koor waroo leen ko bàyyi seetaane yu jinne yeeg yu nit seetaane daa am jinne am nit seetaane jinne mooy ñi nga xam ne tey ñoo ñuy manigancé ñooy jax-jaxal suñu xol waaye seetaane nit noonu la amee nga xam ne fépp foo xam ne nit ñi dañoo war a jaamu yàlla dina fexe ba gàllankoor leen mooy télé yi nag ak ñu ko moom ak animateur yeeg animatrice yi ay seytaane jinne lañu ay seetaane nit lañu mu ne yàlla mu ne allazi yuwaswisu fii suduri naasi minal jinnati wan naas seetaan yi nga xam ne dañuy jax-jaxal xolu nit ci nit ñi ak ci jinne yi moo ñoom Youssou Ndour ak Koosor googu ak Pape Cheikh Diallo ay seetaane nit lañu gis leen nii rek ñuy reetaan ñexe ñexe ñexe ñu naan waaye kii da xol bi daa rafet xol bi daa baax fekk seytaane la xol bi rafetul dara bu ñu joué ci suuf di yàq noonu la mën a mel il faut xol bu baax il faut xol bu rafet parce que daa bëgg yàq. su bëggee mhm. yàq bu il faut lu rafet il faut lu baax pour mën a yàq. du yàq yàqkat bu dee du jow rek di mer di ñàngal di yàq déedéet sa xol day rafet da ngay maye xaalis da ngay reetaan da ngay ngexeñe pour gën a a am nit ñi pour gën mun a yàq. kan ngeen gis ñu ne kii yàqkat la mu ñëw di siiñ di ree di génne karam bu leer wala gis dañuy reer naan noo du la naxee yàlla xol lay fay waa xol bi set na yàlla xol lay fay yàlla jëf ak xol lay fay li ngay def bu bonee li ngay jëf bu bonee sa xol amul njëriñ sa xol bu laab munoo di sànq ay xale nekk ci musique di sànq ay xale di réeral xale yi ba pare nga ne non man sama xol dafa baax quoi eh dugalal bay la dugalal bay nga ne man sama xol dafa baax loolu la ñuy naxee sénégalais yi te koo wax ci ñoom dara ñu naan loolu bu jugé kii xolam daa rafet xolam lan la rafet parce que day maye parce que day ree parce que day siiñ ngexe ngexe ngexe ñu ne loolu noonu xol bi dafa rafet dafa baax. salaamaaleykum xol bi dafa rafet. waaleykum salaam xol bi dafa rafet day ree day siiñ waaye ànd ak loolu muy feccloo xale yi muy weeloo xale yi muy solloo xale yi lu bon. waa kooku moom dafa baax quoi parce que xol bi daa rafet parce que day ree donte mu ngi def promotion lu bon donte mu ngi loo xale yi donte mu ngi leen di solloo lu bon donte mu ngi tasaare musique mu ngi tasaare fecc di ko dooleel non daa baax parce que day ree day ree ree day ree quoi ree ñeexe ñeexe ñeexe ree nga waa ku baax la parce que day ree mooy def promotion musicien yi mooy def promotion fecckat yi mooy def mooy def promotion miis yi mooy futti jigéen ñi waaye ku baax la parce que day ree rek day ree wala xol bi dafa rafet day may rek aka a mën a may yow lañ lay wax de. wala xol bi daa rafet day may rek léegi la muy yàq yëpp nag loolu du dara bàyyi leen ko mu yàq. non euh, Khadija Diouf ci kii ngay tapoté ci maaxat yi mooy photo Ahmed. waaw Khadija da ngay tapoté fi ma def photo Ahmed Khalifa Niass bi <coughs> foofu ngay tapoté incha allah. comme yooyu il faut ngeen xam dafa am mission dafa am ñoo xam ne dañoo ghazwul fikri ay nit yoo xam ne seen mission xam nga lan la dañ lay fekk ci ci diine nga jàpp di ci diine la ñu nekk fekk dañuy yàq diine. mooy émission quartier général ak ñu mel ni Ahmed Khalifa Niass. del xool day am benn complicité bu rëy ak télé yi télé yi ñëpp koy invité saa yu ñëwee benn télé du ko bàyyi bu jigee quartier général bu ngi seen ñoom it seen quartier général la même chose même même même kii la même la rek bu jugee foofu gannaaw suba mu dem Walfadjri bu jugee foofu beneen bi mu dem 2S euh, bu jugee foofu après dem day wër ci télé yi pendant weeru koor bi mission la am bu war accomplir mooy mooy lan naa yàq diine ji jaare ko ci tuuru diine naa yàq diine ji jaaree ko ci tuuru diine mu toog nag ñoo xam ne tekkiwuñu dara ñoo xam tekkiwuñu dara ca yàlla ca yàlla tekkiwuñu fa tus ku tekkiwul dara ci yàlla mooy koo xam ne yow sa liggéey yëpp caaxaan ngay promouvoir fecckat yi ngay promouvoir musiciens yi ngay promouvoir miss yi ngay mouvoir mbër yi ngay promouvoir kooku tekkiwul dara ci yàlla mooy genre Pape Cheikh Diallo yi bu yeboo na mën a reetaan na reetaan ba bëñ yëpp trente-deux dents yëpp génn na mën a maye na baax amul njëriñ ci yàlla yàlla bu fekkee da ngay yàq yàlla day xool li ngay yàq yàlla mun ne man daa ila dalaala falahu ajruha wa ajru man amila biha woote ci caaxaan da ngay am bàkkaar bi ak bàkkaar ki nga xam ne moo la topp ci loolu boo wootee ci caaxaan comme loolu lañ leen di naxe leen naxee ay xol bu rafet ay daa sell ay daa mën a maye loolu lañ leen di naxee ba ngeen jël waajo ju nag bëgg ko dugal ko seen xol fekk waa ji ñàpp lu muy siiñ siiñ yëpp bu toogee après day rendre compte waaw day toog ak Youssou Ndour après moog Youssou Ndour ak ñeneen ñu rendre compte Youssou Ndour moom it dem rendre compte waaw dem compte ay dirigeant am dem rendre compte ay boosam léegi nag weeru koor bu ñëwee nag Ahmed Khalifa Niass la leen di présenté ne leen mu ngi nii présenté la ko nag ne am Ahmed Khalifa Niass kaay programme bi weeru koor bi yow la maanaam yàq bi jaaree ko ci turu diine nga yàq. mu toog di manquer respect saxaaba yi mu toog di manquer respect diine l'islam mu toog di manquer respect charairu diin wala wala li nga xamante ni moom mooy charairu diin daaw quartier général lañ ko invité mu toog saaga saaga soxna Mariama direct saaga soxna Mariama direct tudd daal di koy tudd daal di tudd lu ñaaw wax ko soxna Mariama dafa nekkoon ci ay jigéen animateur animatrice nekk fa di ree waaw loolu daaw la ko defoon ñu fa nekkoon di ree ndeysaan daaw la ko defoon ñu fa nekkoon di ree mooy message bi jàll na ñëw naa saaga naa saaga naa yaayub yonente parce que loolu la bëggoon jàllale parce que loolu lañ ko ne loolu lañ ko ne jàllale ko na dem loolu na jàll saaga ko da jàll mu jàllale ko yéen sénégalais yi immature yi ngeen doon yéen doo leen xaar lu dul émission yooyu nag ke ko invité toog di reer a ngeen naan ndeysaan day ree rek moom dafa baax essan muy yàq sa daw sa doom bi koy seetaan muy naan sa doom muy gëmloo sa doom ne soxna Mariama kat tekkiwul dara ñëw saaga ko mu ñëwaat reen xool ab saxaabi bu gën ci saxaaba yi mu manqué ko respect muy ibnu omar naa la waaw moom bu doon ndogu jabaram la doon ndogu nam mu ci leeral islam de yitteel lu ko yitteel mooy na manqué respect ibnu omar moom loolu moo ko yitteel te réussir na ko yooyu jàpp ñu naan non pourtant day leeral rek pourtant dafa bëgg leeral taxu ko jóg lu ko tax a jóg mooy manqué respect ab saxaabi te réussir na